damay sant yàlla euh, bu njëkk euh, sant samay wayjur euh, bu fekkee ne mun naa répondre si question boobu damay tàmbale wax ni man maa ngi juddoo fi ñuy wax Orkadiéré dans le département de Kanel foofu laa defee samay études primaires ma eggalee ko au lycée Maurice Delafosse euh, jóge foofu ci kattanu yàlla am bourse euh, dem jàngi bitim réew euh, ñëwaat ak un diplôme de d'ingénieur en télécommunication loolu yëpp sant yàlla la tàmbalee nag sama carrière professionnelle presque fële ci Sonatel def fa 17 ans jóge Sonatel ci mbaaxu président de la République bi mu ñëwee au pouvoir mu nommé ma membre du fonds de développement du service universel des télécommunications ma jóge foofu mu joxaat ma beneen ndomb tànk mais cette fois-ci membre du collège de l'autorité de régulation des télécommunications des postes foofu la ma jëlee indima au niveau de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes muy ARTP euh, ma def fi 2014 ba 2019 euh, c'est à la suite de sa réélection en 2019 la ma tànn euh, ma bokk ci ministre yi pour le premier gouvernement bi mu amaatee beneen changement mu tànnaat ma une deuxième fois ma bokk ci ministre yi euh, comme ministre de l'environnement et du développement durable euh, jot naa fa def euh, quatre ans à la tête du département ministériel fu laa jógee mu delloowaat na fi nga xam ne mooy autorité de régulation de télécommunications et des postes muy ARTP Euh, loolu yëpp dama koy santé euh, santé euh, ko ci li ma defal waaye santé ko ci nu mu ko defee bi mooy sama deuxième passage au niveau de l'autorité de régulation de télécommunications des postes mu nekk passage boo xam ne passage bu am important la Euh, lu tax mu important euh, parce que xam naa post bi euh, xam naa liggéeykat yi xam naa secteur bi buñ ci toftalee expérience gouvernementale bi ma am jàppale na ma trop ci gën a mën a liggéey liggéey bi nga xam ne moom la ma jox moo tax bi ma jëlee service Euh, presque une semaine deux semaine euh, dama tabax euh, li ñu tuddee les di priorités te ci kattanu yàlla tey jii di priorités yi quatre-vingts pour cent yi réalisé nañ leen c'est le lieu de féliciter euh, tous les salariés de la RTP mes collaborateurs sant leen gërëm leen ci farlu bi ci liggéey bi Euh, loolu laa mën a wax tuuti si sama jaar-jaar sama euh, cursus scolaire ak universitaire ak sama carrière professionnelle euh, maa ngi sant yàlla nag bu baax waaye du fàtte am naa kasketu maire Mbao loolu c'est pas un poste nominatif c'est un poste électif euh, j'en profite pour dire merci aux population de Mbao ñi nga xam ne ils m'ont fait confiance ci élection locale yi ñu génnee au suffrage universel pour la première fois euh, ñu tànn ma euh, teg ma ci boppu mairie Mbao ndomb tànk boobu aussi euh, du ko mus fàtte loolu moo tax dinaa def sama kéemtalaay kattan pour mériter la confiance Euh, bi nga xam ne waa Mbao jox nañ ma ko. waaw balaa may tontu ci rapport yi damay tontu li tax ma jàppale président dama lay wax lu tax ma jàppale président euh, bi may ñëw APR mooy euh, c'est bien avant la création de la l'APR ci dekkal ngor la tàmbale APR bi président di def déclaration am muy créer parti APR fële ci Pullman maa ngi taxaw. Euh, à ma gis ci moom euh, leadership boo xam ne euh, mun naa nekk ci ginnaawam ngir liggéeyal askan wi ñaareel bi mu am ay qualité humaine ak qualité intellectuelle yu tax ma mën a bootu ci ginnaawam mu nekk sama leader Euh, nekk na euh, koo xam ne nit ku dal la euh, nit ku dal lu mu yóotu yàlla may ko ko parce que bi sénégalais yi di tànn président Macky Sall en 2012 dañ ko tànnee si ñaar tànnee ko si jikko ndax dal parce que kenn mus ko dégg euh, ci wax yoo xam ne euh, kilifa mënu ko déglu euh, ñaareel bi ñu tànn ko ci yaakaar parce que APR yaakaar la sant mu tëgg li nga xam ne moom mooy yoonu yokkute loolu tax sénégalais yi yëpp nangu ni euh, mënoon na wutu son excellence monsieur le président Abdoulaye Wade tànneef bu njëkk bi mooy yaakaar ko ñaareel bi wóolu ko ci dalam waaye ñaareelu tànneef bi en deux mille dix-neuf c'est sur la base des résultats dañ ko expérimenter. ñu xam ne am na ambition am na volonté am na bëgg-bëgg bëgg na réew mi bëgg na yóbbu réew mi jëlee ko benn niveau yóbbu ko li ñuy tuddee émergence mooy yokkute euh, man li may intéressé ci doomu aadama euh, mooy euh, ses qualité personnel donte nit mun na am xam-xam waaye xam-xam dafa am lu ko war a lal muy jikko bu baax xam-xam boo munti am ci àddina bu teguwul ci jikko bu baax euh, xam-xam boobu du am njëriñ euh, vraiment euh, man rëccuwuma li ma ko tànnee comme leader Et je le dis, c'est parce que je le pense. Euh, waxuma euh, parce que caméra yaa ngi jàkkaarloo man mais moom laa gëm je lui voue un très grand respect ñaareel wi je lui suis loyal et je le serai toujours loyal on ne me prendra jamais à défaut par rapport ak sama loyauté vis-à-vis du président de la République quelle que soit la situation et les circonstances je serai toujours avec lui bu ñu waxee bilan euh, nit ñi seen xel yépp mu ngi dem ci bilan matériel euh, walla ay réalisation wala ay infrastructure euh, man dama bëgg tudd bilan boo xam ne kenn si prédécesseur yi defuñu ko moo xam ne mun naa ci teg loxo te mun naa si joxe ay firnde boo waxee tabax na autoroute ñu ne la effectivement Ablaye Wade tabax na autoroute boo waxee tabax na tali ñu ne la effectivement tabax na tali boo waxee tabax na pont ñu ne la kële tamit tabax na pont mais ci wàllu environnement mooy secteur bi ma dénkoon. Euh, président dafa def lu benn président yi fi jaar les trois deful euh, bi ñuy jël indépendance dafa amoon ay forêt yu ñu classé woon forêt yi classé yëpp c'est des forêts qui ont été classées avant les indépendances xam nga lan mooy njëriñu euh, classer des forêts Euh, parce que bu fekkee ne classé nañ ko beneen loxo du ci jot lu dul ñu déclassé ko dafay permettre ñu aar gàncax gi le président il est venu avec le PSE mais def ci toftal PSE vert PSE vert mooy indi naataange euh, ci wàllu environnement bi parce que environnement bi dafa jotee lu dafa dafa lié lu bëri ak ci wàllu santé ak ci wàllu koom moom mu gis ni dafa war bu fi jógee bàyyi les générations futures yi ñëw mu bàyyi leen li nga xam ne mun nañ ci teg seen bët je disais bilan bi mu def mooy les forêts qui ont été classées ont été classées avant les indépendances le président a classé dix-neuf autres forêts il est le seul président à avoir fait des classements après les indépendances loolu aussi lu ñuy teg lu ñuy teg loxo la leneen lii yaakaar naa ni euh, ku xippi xool rek mën nga ko gis ci wàllu infrastructure maintenant sur le plan bilan immatériel euh, amoon nañu ay présidents yu am envergure internationale boo jëlee Léopold Sédar Senghor ñëpp xam ko boo jëlee Abdou Diouf ñëpp xam ko boo jëlee maître Abdoulaye Wade le président ñëpp xam nañ ko ci jàng ci xam-xam waaye sur le plan de la diplomatie et sur le plan du leadership international yaakaar naa ni euh, le président de la République est imbattable gis nañu li mu def ay yéegu yu mu def barkaat démb wala fan yi lañ ko dégg muy prononcé wu ci li nga xam ne moom mooy Afrique parce que wala euh, un président bi nga xam ne naam Sénégal soxal na ko waaye le devenir de l'Afrique def ko intéressé moo tax ndaje bu mu dem ci àddina du fa jógee te tuddul nañu respecté Afrique nañu jox cër Afrique nañu jàppale Afrique parce que Afrique dafa joxe deretam joxe ñàkkam pour le développement des autres continents donc euh, bu dee foofu rek la yem euh, mun nañu wax ne le président euh, delloo na en tout cas fu ñu yemoon ci wàllu respecter Sénégal ak sénégalais yi. am na benn cran bu mu ko yóbbu bu ñu fàtte ne président bu am chance la parce que ayam la tudd pétrole la tudd gaz et allah dans quelques mois loolu dina nekk réalité ñaareel bi ci ayu président de la république la coupe d'Afrique dugg Sénégal donc yooyu bu ñu fii naree euh, wax Euh, yaakaar naa ne du xëj ci benn euh, dix minutes wala quinze minutes euh, foofu laa ci mun a yem parce que li ma ci xam yeneen sénégalais yi ñoom xam nañ ci lu ëpp loolu wala li ma ci wax wala li ma ci xam te waxuma ko yi xam nañu lu ci bëri donc sur le plan du bilan le président est imbatable ça je le dis à haute et intelligible waa waxuma ko ku far mais yàlla moo tax may wax ce que le président a réalisé pour le Sénégal et pour le Sénégalais néewuma ñële defuñu parce que intellectuellement c'est pas honnête mais dama jàpp ni fukk ñoom bu defoon benn def na fi fukk donc il part la tête haute Et il par pour la première fois dans l'histoire du Sénégal. Un président qui organise des élections sans y participer. loolu bilan immatériel bu ko neexoon mu buuxante comme ni ñeneen naatoongoom africain yi di buuxante wuti beneen mandat yàlla may ko waaye il a préféré respecter sa parole nit bu amul kàddu lu bëri raw na ko nitu kàddu lu mu wax bu ci yàlla àndee mu jëfe ko xam nga wax li nit mënul wax ne man lépp lu ma wax dama koy def loolu mbiru yàlla la waaye nit mun na sañ sañ na wax lépp lu ma wax fas naa ko yéene def nit dafa war a wax lépp lu ma wax fas naa ko yéene def tabaraka wa taala moom moo ñu ne kabura maxtan inda allahi an taqulu ma la tafaaluun ñaawteef gënul rëy wax li nga dul def donc sunu diine def ko tere sunu aada tere ko sunu culture tere ko euh, jikko bu baax tere ko wax li nga fasul yéene def le président il avait donné sa parole et il a respecté cette parole voilà encore beneen motif bi nga xam ne dañ koy gën a naw gën ko admirer sur le plan national et sur le plan international man am na lu wax sànq boo ci bàyyi xel di nga war a mën a xam sama tontu euh, dama ne euh, j'ai choisi le président comme leader et on ne me prendra jamais à défaut de déloyauté euh, loyauté mooy su fekkee ne nga nit kii wóolu naa la wóolu naa sa xel woolu naa sa xalaat wóolu naa sa tànneef bula tànnalee nga doyloo ko am na benn émission bu ma wax munoo wax ni tànnal ma nga wëlbati nga ne tànn ma tànnal ma ak tànn ma munul ànd nit kii soo ko waxee tànnal ma bu la tànnalee da ngay doylu tànneef bi man j'avais dit que mon candidat c'est le choix du président wax naa ko ko te wax naa ko ñëpp dégg ko bi mu choisir le candidat dama doylu choix am ànd ci choix bi wone ni ci choix bi laa àndal j'ai un meeting de confirmation du choix te Sénégalais yëpp teg nañ ci seen bët te mu soobee yàlla dinaa def lu mel noonu wala lu raw loolu au Fouta def yu mel noonu dans la diaspora parce que nit ki munoo wax ne yow laay soutenir nga banque sa loxo ceux qui sont avec le choix du président et ceux qui ont accepté le choix de Amadou Ba ils doivent arrêter de tergiverser xam nga léegi lan moo des xel rek naan on n'a plus le temps de discuter on n'a plus le temps de faire des observations si les gens sont honnêtes avec eux-mêmes, et je pèse bien mes mots, ils ont eu le courage d'être d'accord. Mais ceux qui ont dit qu'ils sont d'accord, il faut qu'ils le manifestent par le travail de terrain, par leur implication et par leur engagement. Nena, man gëmuma and ak nit diggante 8 heures ba 23 heures entre une heure et trois heures du matin wala entre une heure et deux heures du matin entre une heure et quatre heures du matin nga am leneen looy doxal gëwuma loolu nit dafa war a gëm yàlla fonk boppam fonk sa bopp lan la mooy téye sa kàddu ceux qui ont dit oui à Amadou Ba ils doivent prouver pourquoi ils ont dit oui et ils doivent le matérialiser Et je pense que c'est le bon choix. En tout cas, c'est un choix que moi, je vais assumer. Partout. Et je demande à mes camarades de taire les débats. Il faut qu'on arrête. Soit on est là-dedans, soit on n'est pas là-dedans. On n'est pas là-dedans, on, est, on ait le courage de dire que Andoumati. mais l'unanimité n'est pas de ce monde bu unanimité amoon kenn moo ko war a yeeyoo lu prophète sallallahu alayhi wa sallam mais quand il est venu dafa woote am ñu ne d'accord am ñu ne d'accord ñu et c'est su fekkee ne nit ki d'accordul mais d'accord ma mais doo wax d'accord na bu paree ngay jëfe leneen loolu ñuy ñaawlu la lu munul nekk la politique dafa war a rafet dañ ko war a teg ci euh, euh, ci ngor war ko teg ci yoon parce que c'est pas incompatible c'est pas dafa am lii sallallahu alayhi wa wax mu ne ñetti jikko yi bu dajee ci doomu aadama kooku nitu safara la ñu ne ko yan la mu ne ida haddasa kazaba wa ida waada axlafa wa ida uti mun a xaana mu ne képp koo xam ne lépp lu mu wax du dëgg képp ku mu jëflanteel mu war la lépp lu mu diggee du ko def kooku du nitu ajana yal nañ ci yàlla musal du candidat bi mooy tànn mbubu moom dañ ko tànnal mbubu boobu mënoo génnee le candidat ci bilan wu président Macky Sall ko ci génnee def ci taxrib donc il va bénéficier de deux choses parcours am mu moomal boppam de manière intrinsèque en tant que Amadou Ba waaye il va bénéficier du bilan du président de la République, parce qu'il est comptable de ce bilan. Sénégalais yi bu dee mun nañu ràññee xam nañ ne c'est l'un des artisans du PSE am na lu bëri lu mu xam ci vision wu président de la République am na lu bëri lu xam ci mébétu président la République donc ku xam vision président de la République xam yéeneem xam mébétam kooku président de la république demee mun na ko wut. man dama jàpp ni comme ni ma ko doon waxee sànq réew mi sunu réew la ñun ñoo bokk réew mi nañu yéenante jàmm yéenal yéene réew mi jàmm ñu fexe ba jàmm xew Sénégal ñu fexe ba élection yi jàll ci jàmm ki yàlla may ndam li mu gouverner ci jàmm dara dara amul solo fu jàmm nekkul te jii boo demoon Gaza euh, soo leen waxoon leneen ak jàmm ñu tànn jàmm jàmm fu amul doo tal leneen yal na yàlla indi jàmm ci réew mi indi naataange ci réew mi yóbbu ñu ci élection ci jàmm ñu gañe ci jàmm toog ci jàmm Sénégal dem kanam si jàmm <laughs>